mooy dañ ko bëgg a jàppale ba am ndam ci liggéey bi moom sëñ Mountakha moo tax mu Mountakha di nuyu sëñ Abibu di ko jot loolu nuyoom ci bokk taalibe bi àndal liggéey bi yëpp muy waa Touba ci kanam ak fukk taalibe bi nekk boo xam ne yëg nga ne Touba ci kanam ñi ngi liggéeyal sëriñ Touba nga di ca def la nga man ñooñu sëriñ Mountakha mi ngi nuyu ñëpp leen sant leen gërëm jataay bii ñu daje nag day jataay boo xam ne rëy ci sëñ Mountakha la lu sedd xolam la ndax jëf ji nga xam ne Touba ci kanam jëf na ko fi dafa négocié bi waxe dafa ànd ak daf ko gunge ci ay jéego ya dox moom sëñ Mountakha jéego yi muy dox mooy gëm ne àdduna sëpp jabootu sëriñ Touba la koo xam koo xamul ko nangu ak ko nangu ndax sëriñ Touba moom bind simaamu wara asri la dallaahi fi yadi sëriñ Touba du bind lu ko boroom waxut kon waraa rek baatu waraa jànkate arab yi xam nañ ko mooy lépp lu suñu borom bind rek baatu waraa la kon adduna sépp njabootu Serigne Touba kon lu xew ci adduna rek sëriñ Touba moo ci war a jiitu moo ci war a mujj la ndimbal la ci yàlla def ak yërmande ci yàlla def Serigne Touba lay jaar moo tax bi ñëwee wéradi googu bi ñu ko yëgee muy law ba senegal ñu bari dañoo gis ne senegal de mënu fi mënta ñàkk dugg itam du fi lore xëy na lu àll yàlla indi lay doon mu jaar fi waaye ci barkeb sëriñ bi gëm nañ ne lore ji du moom du ëppee Sénégal moom faaw suñu borom waaye fal ko ci barke Sëriñ Tuubaa loolu nag ñaari sabab yi yi ma waxoon keroog rek ma ci am sababu saayir sababu baatin baatin moom sëriñ bi mooy ñaan suñu borom ci barke Sëriñ Tuubaa suñu borom di ko di ko nangu te gis nañ ko ci yu bëree bëri saayir si nag mu Muntaxa ñaar la na nañuy jaamu yàlla tey wattandiku <laughs> wattandiku mooy lii docteur yi ak ñi yare saayir si li ñuy digle ñu di ci bàyyi xel di ko jëfe jafe ga mooy ñaar yi mooy nañ jiital cet gi liñ laaj cet gi laa jët ñu def ko loolu nag fi laa jëm si mooy jëfi Touba ci kanam ji tey cet googu liñ ci soxla ci dëkk bi Touba ci kanam jëfam ji waa dëkk bépp mën na ci sukkandiku ba cet ga amee ci te sëriñ bi ba muy yëkkati deux cent millions yi di ko yónnee président bëgg matuwaay ñu di ko ci jël lay doon waaye li ci gën a amaat solo gën cee neex mooy sëriñ bi bu dimbalee état bi noona ba ba noppi dañuy xam ne dëkk bi moom njabootu Serigne Touba ñoo koy yaral Serigne Touba li war ci dëkk bi njabootu Serigne Touba ñoo koy def kon xam ngeen ne xaaruñu ci etaa li ñu wax def lépp weer yëpp def nañ ko wàllu cet gi li nga xam ne andi nañ ko fi ci stock yi muy madaar yi mooy eau de waaye ba ci gel bi xam nañ ne bu ñu koy jëfandikoo ci dëkk bi mën naa téye dëkk bi ba dootuñu ko dégg te dañoo gëm ne léegi ñu ko dégg liñ ci jëfandikoo ci wàllu service d'hygiène li ñu fi jàll service d'hygiène war koo liggéeye ñoom service d'hygiène ku leen laajoon danañ xam ne mësuñu leen a jox quantité yu toll nii ne leen dem leen liggéeyee ko loolu Serigne Touba rek moo ko am moo ko man da nga xam ne liggéeyam Serigne Touba Serigne Touba rek ko attan ndax mbirum Serigne Touba mbirum suñu borom la mbirum suñu ay loxo yu fees da ko attanul li ko Serigne Touba attan it mooy ay ndawam lay yebal la ñu waroon def lépp ñu def ko kon Touba ci kanam lii mu def tey jii wane na <clears throat> ñu ngi yanul Serigne Touba liggéey bi saayir si seen kam kattan baatin bi Serigne Touba yorul ko boppam Serigne Mountakha muy Serigne Touba mu ne ci ñaanam lii jëf jii koo gis xam ne daal sëñ mu tax sedd na ci koo gisee bëgg lu baax sa xol dana sa xel dana ci dal mu mën a gunge sëñ mu taxaa ci la ma waxoon nañ jaamu ji yàlla te def matuwaay yi wax dëgg yàlla matuwaay bii ne ku ko def boo ne damay jaamu ji yàlla kenn mënatu laa yedd kenn mënatu la wax da ngay provoqué ndax yaa nga def nga waajtaay wa ca war def nga ko ko defee ba noppi nag dem jaamu ñu ñaan yàlla yàlla wuyu nangu nu waaye buñ defut nag li ñu war a def ba noppi da ci des kon maa tey lay mooy jaamuwoo yàlla bëggoo ñaan bëgg yàlla may la loolu ay caaxaan waaye boo boo ña booy ñaan yàlla itam lañ la sant ci wàccaay nga wàcc ko ba noppi kon sa jaan wàcc na li ci des suñu borom lay dese sëñ sëriñ mag ñi daanañu wax ne kenn du wàcc wàcc ko ci ku def sa waar mu def waaram waaram a gën a yaatu kon ginnaaw def na def ngeen leen war sëñ Abibu sëñ Muntaxa lii rëy na ci moom mel na ne moo fi taxaw tey joxoon na sëñ Abdoulaye joxoon na ma liste ba wax joxoon naa ko dinaa ko gën a leera leeralaat lii waaye li ci gën a neexati mooy wàccaay dafa desewul fenn ndax xéewal lii ñu waajal daara yi ak ñu néew doole yi ñu téye seen i kër loolu wàccaay woowu ba fi ne maa ngi koy dégg waaye man gisagu ma ko fenn gisagu ma fenn ceeb bu ñu joxe fenn ci benn dëkk wala ci benn réew te lii Touba ci kanam taxawal tey gisagu ma ko fenn déggu ma fenn ci ñu ne préfecture nangam wala gouvernance nangam nangam dem na fa séddale nañ ko tey xëy na ci wàccaay lañ nekk wàccaay baax na lool waaye jëf nag daa gën a wér lépp lii mooy jëf ju mat mooy jëf juñ gis mooy jëf juñ mën a teg te loolu mooy tax dara sotti kon nag sëñ Abibu sëñ mu sant la sant la ñi nga àndal ñëpp sant la jëf ji dafa rëy waaye xalaat bi ko def ak passé bi ko def dafa mat a bàyyi xel ndax ñett yooyu rek mooy ànd dara mën a am dañuy xalaat ñu koy waxee rek yéene lu baax da koy koy yéene wax ko jëf ko kon mooy nii bu ngeen ko xalaatee ba nas ko dem indi ko joxe ko ne nañ ko defal sëñ Tuubaa ci dëkkam bi kon na xam ne ne yéen a ngi taxawal sëñ Tuubaa ci dëkkam bi kon na ci ñëpp jàpp sëriñ Mountakha bég na sant na te lii wax na ko bëgg démb rek laa ko fàttali muy wax ne li ñu war a def lu ci manqué nañ ma ko wax ma def ko ma ne ko jàpp naa ne du manqué de mbaa bu dee manqué du manqué léegi ndax waa Touba ci kanam de liste bi bii ñu la jox ne dañ la ko defal bu bala ñu ko jëfandikoo ba mu jeex jàpp naa ne lii mën na fe jeex wéra digg mën naa jeex kenn dootu ko dégg kon loolu mën naa sant yàlla mën naa rafet jor mën naa dalal xel waaye mën naa soññoo nag ci nu jëm ci kanam nun ñëpp da lii rek moo jëm ci kanam lu ñëw nga taxaw ci na ci war a taxawee fas yéene waajaat la ñuy ñëwaat nga waajalaat ko fejjël feetlaat pas ak yéene yi lu ñëw nga def ci na nga ci war a def yàlla na sëñ Tuubaa di gën a gàttandu ba lu ñëw lu ne nañ ci yéene taxawee na ngeen ci yéene taxawee ngeen mane ko ni nin koy yéenee noonu ñëpp nu mane ko noonu taxawal sëriñ Tuubaa waa kon ñu jaaree mii dañuy ci suuf kon léppay dem léppay mat léppay sotti yàlla nañ ko ànd euh, Touba ca kanam bi sëñ Mountakha yëkkatee loolu mu yëkkati jox ko état tam tolloon ci deux cent millions woote woon ne euh, ku ci man na mën na ci mbir yëpp loxo loxoom boobu la ci Touba ca kanam tàmbalee waxtaan ak a xool yan yoon lañ koy jaar niñ ko baaxoo defee nag heure bu ñu amee ndigal ci sëñ Mountakha mu wàcc ci sëñ Abibu jaar ci sëñ ab laat ak si ci Touba ca kanam dañuy waxtaan organiser ko ba teg ko ci aw yoon ci biir loolu dem nañ gis district sanitaire bu Touba waxtaan ak ñoom jël seeni xalaat ak seen i orientation dem ci sous préfet ànd ak moom dem ci préfet bu Mbacké bañ demee ñu waxtaan ak ñoom tamit déglu leen dég jël seen i orientation ci leen nag daal di kon sóoboo ci liggéey bi li nga xam ne nag tàmbalee nañ ko te muy tàmbali boo xam ne dañuy ñaan yàlla mu bañ a àgg tàmbali yëpp. yi ci ëpp ñaari ku koy def da ngay ñaan li ngay tàmbali àgg waaye tàmbali bi moom dañuy ñaan mu bañ a ndax li ñuy ñaan mooy li li ñu tax a jóg li ñuy xeexal teel fee jóg ci barkeb sëriñ bi ba xeex xeex bi ñuy xeex ak moom du àgg tàmbali boobu nag 45 euh, millions lu toll ne 45 millions ci xaalis lañ yëkkati def ci wante ni ñu xamee liggéey Touba ca kanam ñaare somme bi ñuy wax ne moom lañ ci def foo ko fekk da koy ëpp da koy ndax la ca waroon a ànd ci li ñu war a fay ci ay nit ngir ñu taxawee ko yooyu yëpp lu ñuy jaayantale liggéey lu ko sëriñ bi kon ku ko doon xayma dana romb fop 45 euh, millions yooyu ñuy wax 45 millions yooyu ci biir quarante 45 millions yooyu nag li nga xam ne moom lañ ci waajal ngir fas yéene koo jàppalanteeg waa dëkk bi ak service yi nekk ci dëkk bi tey liggéeyal dëkk bi euh, toll na ci dañ cee toll na ci lu mel ne li ñuy wax euh, saabu ndox ndax bi ñu waxtaanee ñoom dañoo gis ne bu dee saabu saabu bi nekk saabu ndox moo ci gën ñu jënd ci lu tolloog ñaari junniy carton nekk 24000 bouteilles 24000 bouteilles jënd nañ ko ci. bu dee eau de javel jënd nañ ci mille 1000 cartons nekk 12000 bouteilles bu dee euh, gel bi ñu def ci loxo gel antiseptique yi jënd nañ ci lu tolloog 3312 flacons mais yooyu du yu ndaw jënduñu yu ndaw yu mag yi lañ jënd ndax dañoo bëgg fépp fu ab flacon nekk rek ñu bari man caa man caa jariñu euh, jënd nañ tamit euh, li ñuy wax dioxyde de chlore produit désinfectant la boo xam ne day rey doomu jàngoro ndax ànd nañoo ak waa service d'hygiène pour fas yéene pomp dëkk bi yëpp bërëb yi nga xam ne mbooloo yi dañ fay daje ci jumaa yi ci morgo yi ci marché yi ci gare routière yi ba nga xam ne fépp fu mbooloo yi daje eh, ngelaw li ñu noyyi moom danañ fexe ba pompe ko ba doomu jàngoro ju ci nekkoon ñu jëm ko ñu jëm koo rey loolu tamit def nañ ci lu tolloog 27000 litres loolu bu ñu waxee Touba day yóbbaale li wër dëkk bi euh, masques yi ñuy takk am nañ ci commande 2000 masques ndax personnel bi war di liggéey liggéey boobu dañ leen ciy jox. donte sax niñ ko xamee fi mu ne man eh, dafa jafe waaye commande bi jàpp nañ ne li am na ci lu ñëw am na ci loo xam ne balaa ñuy tàmbali liggéey yi dina ñëw wala ci biir liggéey dinañ ko jot appareil yi nga xam ne moom la yor di ko pompe euh, waa service d'hygiène am nañ ci ñaar yu mag ñun ñoo leen di jox oto ñu aj ko ci kaw oto yi def liggéey boobu waaye bu dee yeneen yi nga xam ne nag yenn ruq-ruqaan yi oto mu tëddugu yooyu am nañ luy tolloog fukk ak juróom benn appareil yi nga xam ne dañ koy téye ci loxo yooyu am nañ ci yoo xam ne appareil essence la am ci yoo xam ne appareil manuel la euh, ba tey lu jëm ci daaray alquran yi ndax ndimbal yee ñu wax léegi danañ ñëw ci naka lañ koy séddalee waaye waajal nañ tamit luy tolloog 1200 saagi ceeb yu cinq kilos carburant bi nga xam ne moo war a def liggéey bi yëpp préparé nañ ci luy tolloog mille litres ay produits phytosanitaire tamit am nañ ci benn loo boo xam ne dina man loolu yëpp diirub liggéey bi nag fu mu ci toll bu ñu demee ba gis ne laaj nañu yokk ko dinañ ko yokk léegi nag ñu ñëw ci naka la ñu xalaatee séddale bi daaray alxuraan yi lañ ci jiital ndax xam ngeen ne dëkk bi dëkkub daara la dëkkub alxuraan la te Serigne Touba la ñuy liggéeyal moo tax ñu ne ñu tànn lu toll ak junniy daara ànd ko ak sëñ Mamor mi nga xam ne moom la sëñ bi teg daara yi ci loxoom ak waa rabitatul madarisul quran yi ñoom ñoo xool nan lañ koy organiser daañu leen jox luy tolloog 1440 bidon ndoxu saabu nekk 14400 euh, nekk 1200 1200 cartons quatorze mille quatre cent bidons lay doon nekk mille deux cent cartons. carton ndoxu saabu. bu dee eau de bi danañ leen jox six cent cartons nekk sept mille deux cent bouteilles yi euh, ñoom loolu lañ leen di jox dolli ci nag junni ak téeméeri saaku ceeb yu vingt cinq kilos. bu dee jumaay Touba ji ak li ko wër bu ñu waxee jumaa ji li ko wër mooy kër njabootu Serigne Touba gi ko wër te am ay barab bi suturlukaay yoo xam ne nit ñi dañ fay faral di dem boole ci morgue bi boole ci kër Serigne Touba gi boole ci tamit armée lu Baqiya dinañ leen jox lu tolloog 228 cartons nekk 2736 bidons jox leen ci ci saabu bi eau de javel bi ñu jox leen ci 112 cartons nekk 1344 bidons gel bi ñuy def ci loxo yi ñu jox leen ci 50 cartons nekk 600 bidons di fàttali na gel bi tamit binon yu mag la ñuy joxe joxe ndaw bu dee yeneen jumaa yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi jumaa yi ñuy jullee ajjuma jàkka yi bokk ci ndax jàkka yi lim bi kenn xamul nu mu toll jumaa yooyu 120 euh, jumaa lañ yoo xam ne dañ ciy julli jumaa yooyu danañ leen jox cent vingt cartons saabu mu nekk mille quatre cent quarante bidons ñu jox leen soixante cartons euh, eau de javel nekk sept cent vingt jox leen cent vingt cartons gel nekk mille quatre cent quarante bidons morgue yi ci dëkk bi recensé nañ ci li tolloog juróom-ñett dinañ leen jox quinze cartons saabu cent quatre vingt bidons jox leen quinze cartons javel cent quatre vingt bidons ak douze cartons gel nekk cent quarante quatre bidons structures yi nekk ci dëkk bi hôpitaux yi. Euh, centre de santé yi poste de santé yi ba ci case de santé yi recensé nañ ko yii yëpp nag bu ñu koy def dañuy ànd ak ñi nga xam ne ñoo ko xam luy tolloog 40 structures yooyu dinañ leen jox 208 cartons savon nekk 2496 bidons 86 cartons javel nekk 1032 bidons jox leen luy tolloog 51 cartons gel nekk 612 bidons résidence euh, Cheikhul xadim bi nekk Daarul Mannaan bërëb la bu ñuy wàccee ay gan euh, ak résidence Cheikhul xadim bi nekk ci yoonu garas Daaru Musti dinañ leen jox luy tolloog quinze cartons euh, quinze cartons saabu jox leen luy tolloog dix cartons javel luy tolloog quatre cartons gel bu ñu ñëwee ci centre d'isolement bi nekk héliport te état Sénégal def ko fi ngir ñu di ko waajal am na sax benn mm, hôpital mobile bu fa militaires yi yor xalaat nañ leen a jox quarante cartons savon nekk quatre cent quatre-vingts bidons vingt cartons Javel nekk deux cent quarante ak dix carton gel nekk cent vingt bidon orphelinat kër Mam Diarra mooy kër gi nga xam ne ci la ñuy denc jirim yi ak baayo yi ña koy taxawee dañ leen jàppale ñoom tamit dix carton savon nekk cent vingt bidon cinq carton Javel nekk soixante bidon ak trois carton gel nekk trente six bidon euh, force de défense et de sécurité yi nekk ci dëkk bi gendarmerie police pompier service d'hygiène euh, nekk euh, ñu wut ñu xayma ne ñoom huit lañ boo ci boolee escadron ba la ca sorti ba danañ leen jox soixante soixante huit cartons savon soixante huit cartons savon yi day nekk huit cent seize bidon trente quatre cartons javel nekk quatre cent huit dix cartons gel nekk cent vingt bidon biir am na jàkka ju fa nekk joo xam ne bërëb bu mbooloo di dajale dañ fay jàngee alquran di fa jaay ay téere yu ni demee danañ leen jox deux cartons savon de vingt quatre ak benn carton de douze bu javel ak benn carton de bu gel loolu mooy li nga xam ne moo aju ci ni ñu ko bëgg a distribuer bu ko defee euh, ceeb bi danañ ci bàyyi luy tolloog 100 sac ak la mu war a àndal ngir bépp kër goo xam ne dañ ko mettre en quarantaine wala bërëb bu ñu mettre quarantaine te ñu soxla ku leen jàppale ci dund ci ab dund loolu tamit bokk na ci li nga xam ne waajal nañ ko kon loolu mooy li nga xam ne euh, tënk nañ ko am nañ ay réunion nag yu bëree bëri suñu diggante waa service d'hygiène ñu ngi nuyu euh, capitaine sëñ Fallou saar mi nga xam ne boobaak léegi mi ngi wane disponibilité am ak jàppandem bay bay bay benn ci biir mbooloo mi ñoo ngi ko ci jaajëfal bu baax a baax nga xam ne ñoom seenub liggéey fas nañ yéene moo tàmbali tey bu ko defee nag ci biir loolu kon ñu maase xam ne mbooleem euh, respect yi nga xam ne wax nañ ko te mu jëm ci sàmmanteeg ak cet te mooy sabab yi nga xam ne moom la ñu lislaam sant jaar ci sabab yi te wakkirlu ci yàlla sax day mel ne bu ngeen xoolee carton yi loolu ci bind Touba ca kanam bi ñuy préparé lii te sukkandikoo ci waxi Serigne dañ ne nañu jaar ci sabab yi te wakkirlu ci yàlla ci loolu nag ci lañu ñu tàmbalee lii ngir dugge ko ci sabab yi di ñaan yàlla mu mu bañ mu bañ a law waaye ci ñi nga xam ne jàpp nañ ñu jàppale nañ ñu ci liggéey bi euh, Touba ca kanam moom buñ ko waxee mooy ñoom mm-hmm. waa Touba ca kanam gépp la ñuy maase sant ci seenub taxawaay ci seenub taxawaay ndax képp koo xam ne yëkkati nga saw ñaar téeméer dugal ko ci Touba ca kanam na xam ne lii yaa ko def foo mën a nekk waaye danañ beral ak sant euh, waa diaspora bi xam naa loolu ku mel ne sëñ laat wala sëñ Abi bu ñu jëlee kàddu dana ci gën a ñëw waaye lañ cay wax rek mooy ñoom dañoo nekk ci euh, jafe-jafe yu metti ndax tukki rek doy na jafe-jafe boo ca dollee lu mel ni ñëw daal ci sa kaw ak tumuranke ak jaaxle da ca daal di dollee ko waaye ñoo ngi leen di ànd ñoom di leen massawu waa diaspora bi yëpp nag rawatina ñi nga xam ne nag ñooy représenté Touba ca kanam ci àdduna bépp ndax kat euh, lépp lu Touba ca kanam am lu ëpp fanweer ya ci téeméer boo jël ci diaspora bi la bàyyi ko kon dimbal yi ñu dajale tey jii di ko jàppalante ak waa dëkk bi bu doon téeméer a fanweer nangam ci diaspora bi la bàyyi ko ñu mat sant lañ ñu mat a jaajëfal lañ ñu mat a gërëm lañ établissement bu ñuy wax nay Naïda Phyto Naïda Phyto moom jàppale ne waa Touba ca kanam bu baax a baax ndax yónnee na fi lu am solo ci ay produit produits phytosanitaires yónnee fi ay pompe ya nga xam ne ay pompe euh, super la ay pompe manuel ba bari bagage yi ngeen tiim bari na ci loo xam ne ñoom ñoo ko yónnee suñu xaarim Fall may jëwriñ ja ñoo koy sant bu baax di ko gërëm soxna maam xarim Mbàkke tamit dugal na ci loxoom waaye euh, ministre Dame Diop jaarale na luy tolloog 500000 ci député sa Sadaga mu agsi ci Touba ca kanam kon daal loolu ci tënk bu ñu amut euh, lu ñu fàtte te xay na ñi ñëw ci suñu danañ ko mën a mot li kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci bëggoon a jot li dañoo gis ne euh, nattangoom bii di Paul Kagame da ko lancé ab challenge da ko yónnee ay kaddu ci nekkoon na wane misaal ci ni ñuy raxasoo muy lu am solo mu jógee ci jël ay matuwaay yu am am solo ci population sénégalaise bépp ba sax ñu nekk actuellement ci état d'urgence ay matuwaay yu am solo la li ma ko yóbbanti nag ci challenge boobu ma dama ko ci dollil beneen challenge di ko ñaan nag mu relever ko mooy na na ci boole ay journée de prière wala ay semaine de prière fexe ba sénégalais yi rajo yi télé yi ak manifestation yi ak jàkk yi ak jumaa yi yëpp ñu di ko delloo ci yàlla ndax ñun ñëpp maase nañ xam ne li ñuy def ni diggante euh, temporel ak spirituel ñoo mas di ànd li ñuy def ni xëy na mooy lu temporel li spirituel mooy ñaan yi nga xam ne mooy zahir ak foo fekk ñooy ànd te mboolem adduna bi am nañu jaaxle am nañu tiit jaxasoo nañ am na ñu àgg ci ne mboolem lu ñu xalaatoon mboolem lu ñu amoon ci ay jumtuwaay jeexal nañ ko te mënuñ ci yëf yi dara nun dañoo am leneen loo xam ne dañ ko cee war a dolli mooy delloo nit ñi ci yàlla ñu maase ñun ñëpp tuub salan si boobu faw njiitum réew mi da ko war a jiite woo ci ñëpp ñu maase ci tuub balon tey ak di sakki sarax te yàlla rek tax fépp foo xam ne fu ñuy teg ay ay ay ay folklore la mbaa am fo moo xam ne ñuy seetaan la wala nu ñuy déglu ñu dindi ko maase delloo suñu bopp ci yàlla ndax yàlla mi am kattan ba dugal jàngoro jii nga xam ne ci adduna bépp la ko wàccee te benn bët mënu koo gis bëtub kese ngir dafa tuuti benn bët munu kenn du gis ak wala mu déggu yëngoom ngir dafa tuuti te teewut mi àdduna bépp ngi taxaw ne dañuy def guerre mondiale guerre koo gisut guerre koo déggut guerre koo xam ne doo ko doo la xeeñ du bu yomb kenn doo am kattanam mooy ki nga xam ne ni mu ko sàkkee mu tuutee noonu la sàkkee yu ko ëpp fopp te loolu astron astronomie physiciens yi duñ dañ ci di ko wax wax nañ ne euh, adduna bi li ci yàlla sàkk ci ay ay dënd mu ñuy wax ay planète moo ëpp nombre de fépp suuf yi univers bi boo ko doon mesurer kenn xamut ñaata milliards d'années euh, ñaata euh, de lumière la te benn atu lumière bu nekk neuf mille cinq cent de kilomètres la adduna bi am na ci distance xam ne kenn xamul nu mu toll suñu adduna bii ñu nekk di ci dund boo ko dugaloon ci biir univers bi day seey comme poussière lay toll yàlla mi am kattan ci sàkk lu ndaw noonu la amee kattan ci ñi nga xam ne ñoo yëngu ci ci ci science dañuy wax ne li ñuy wax super supernova day am mooy ay adduna yoo xam ne day dem ba seen dund jeex mu explosé toj yàlla am na kattan ci jële fi adduna bi te du ko wàññi dara ndax jëriñuñ ko dara hmm. bu ñu xamee loolu nag dañoo war a delluwaat ci moom xam ne lii lépp moom la te buñ ko tuubee jéggalu ko mu jëlee ko fi te loolu njàngale mi alxuraan la wasalaamaaleykum wa rahmatullah ci turu Serigne Mame Mor bu Cheikh Mamadou Fadal euh, ñu ngi leen di nuyu moom it mu leen di nuyu ci turu mboolem Euh, ñi nga xam ne ñoo yore jàng alxuraan ak di ko jàngale ci dëkk bi euh, nuyoo boobu mu koy teg ci loxob Serigne Abibou ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp ci Touba ci kanam di leen jaajëfal bu baax a baax nag ci taxawaay bi dafa mel ni li ñu soxla woon ci discours li ci ëpp Serigne Fallou euh, an Serigne Abdou Fatah Guèye andi na ko ndax wax na dispositif yi nga xam ne moom lañ jël li ma ci jëkk seetlu mooy matale gi nga xam ne ci wàllu organisation loo waroon a xalaat daanaka dem nañ ca kon loolu ñu leen ciy jaajëfal lu xam ne structure bu organisé wu moo nekk noonu waaye li mu tëjee it muy delloo nit ñi ci yàlla nga xam ne mooy li ëpp solo lépp te mel ne mesures yi lu ci baree bare baree bari dañ ko ci xaw a fàtte te dafa mel ne mooy l'essentiel ndax ginnaaw yàlla moo ko tege delluwaat ca ca bi sëriñ bi ci am njàngaleem dafa wax ne bu ñu la xiiree ab kal bu muy ab dawkat la fa nekk di sa lax daw dellu ca borom ndax du la borom di songu mukk kon ab julit day dellu ci suñ borom moo tax sëñ Abdou Fatah message boobu bu ama am solo la boo xam ne eh, yàlla na ko autorités yi déggee noonu ñu bàyyi ko xel baax a baax waaye ci turu sëriñ Mamor ak daara yi kon ñi ngi sant bu baax a baax ndax lii waxtu nekk lañ ko soxla waaye waxtu wii nag moo gën di waxtoom ndax ku ne xam na ne waxtu wii ñu toll eh, daara laaj na taxawu ndax génn di yalwaani rek daara musu koo bëgg waaye rawatina nag ci waxtu yi moom exposé wu ci danger la kon fekk daara yi nga xam ne dañ daan génn di yalwaan ñu man leen a jàppale ca fañ nekk ba ñu am lu ñu mën a tooge ñaareel biit mbooloo la ñuy doon ci condition hygiénique yi luy tax ñu mën a waxtu wu nekk ndaw ñu mën di set te taxawaay bi loolu la indi kon ci turu daara ñu ngi sant bu baax tey wax ne ndimbal la loo xam ne lu ñëw ci waxtoom la te incha allahu taala fas nañ ko yéene nii ñu ko waxee tasaare ko ba ñëpp jot ci ba noppi te soññi leen ci ñaax leen ci kon ci seeni micro dinañ ci jaarale sensibilisation boo xam ne day soññ sëriñ daara yi ci ñu gën a taxaw gën a taxaw ci gone yi ndax ndaw ñu ay ndaw rek lañu faaw dañ leen di jàppale ci wàllu set waaye dañu leen a war a taxaw it ci wàllu dund noonu laay yaatale sama kàddu sax di wax ne jëpp daara joo xam ne dañ daan yalwaani waajur ya fa yóbbu seeni gone jërul ñuy nekk sëñ daara ba mu leen di woo nañ ko wuy ji te jàppale ko nga xam te loolu ñoo xam ne incha allah man na bañ a yàgg benn période la rek boo xam ne yàlla na ko yàlla gaaw a jeexal euh, su munta ñàkk ñuy door a génnaat waaye yaakaar naa ne nii ngeen ci taxawee euh, loolu dana doon dimbal te dafa mel ne biig rek ñi ngi yëg ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha moom it fi mu toll nii yaakaar naa suba gannaaw suba dinañ ci xëy moom it am na beneen don bu mag bu mu yëkkati mu jëm ci daara noonu it lañ séentoo ne mboolem boroom man-man yi ci dëkk bi dinañu def noonu su ko defee gone yi daan génn di yelwaan dinañu mën a toog te toogee ci condition yu baax a baax kon ñi ngi sant bu baax di ñaan suñu borom mu gën a jëmale Touba ci kanam ci kanam ndax ak jëmum ci kanam kat jëm kanam dëkk bi la dafa mel ne xaw ma tur yu lu ko indi waaye du hasard ak ni muy doxee kon euh, waaye nag loo xam ne dañ koy defal sëriñ bi te sëriñ bi moom am feuille de bu leer ndax boo delloo ci euh, Matlabul Fawzayni yaakaar naa ne ni mu ci bidd euh, ku xool doxin wii bépp situation bu ñëw ñu adopté ko xool la mu laaj ñu def ko te loolu mooy doxiin wi loolu kon ñu ngi ciy sant bu baax di ko rafetlu di sant ci turu Serigne mamoor Mor Serigne Abibou ak jëwriñ yi nga àndal euh, ci taxawaay yu rafet yi nga xam ne yéen a ngi koy taxawu waa dëkk bi di ko taxawu njabootuk Serigne Touba gépp te loolu ci ñaari wàll yi nit am muy ci wàllu diine te ñun ñuy ay jullit dafa mel ni kon loolu farata la waaye si le plan humanitaire tamit ku ne xam ne ne sociale day lu munta ñàkk